tabaarakallaahu ñaanal bu baax xaaji omar silla yàlla na yàlla mottali niyaat yépp ala wajhi sihati wa salaamati wal aafiya nuyu bu baax al ustaas al imaam xaaj jabel koyaate yàlla na ko yàlla jàppale masha allahu wuutu na tey xadarata maaliki yépp ci yeneeni jataay yu yii kon yàlla na yàlla may la wér ak kantan nuyu ah Cheikh Tidiane Niang Xaaji Ibrahim Sëriñ Babacar ak ñëpp euh, daanaka sax dañoo xaw a gëlëm ci lan la ñuy war a wax walla lan la ñuy war a ci nitu yàlla bii muy Seex Alxaaji Mansour radiallahu taala anhu waaye lii sëriñ Cheikh Tidiane si waxoon radiallahu anhu nee na daal téeméeri nit ku ñu waar nga dof kon lii xaaji Omar si la wax imaam Jabel ñëw saraa dafa doy sëkk sëkk sëkk ci Cheikh Alxaaji Mansour waaye junju na ay junj yu bari ci moom waaye man benn rekk laay wax delloo kàddu gi ndax al insaanu xurrun maa lam yatakallam maa ngi wax léegi xaj moo di ñan lii ma ànd ak bi may ñëw ma ne ko nag samedi am nañ fu ñu daan nekk ci benn daara ci HLM Grand Yoff waaye xaaju Omar tey fi mu dugg mu cheikhul xawmi ku yàlla dimbale rekk yaay fekkee jataay boobu kon sant nañ yàlla waaye sant nañ la waaye imaam Jabel wax fii gannaaw bi nga def ay ishaaraat indi ay xasaid ah yoo xam ne nii góor gi def na ko waaye ma masa bokk ak sëriñ Mahamadul Habib si ibnu alxalifa sëriñ Babacar si Mansour 2003 2004 conférence ca Kaolack ca Betoar ci ñoom Ousmane jaw waaye ba sëriñ Habib pare ñu ne ma defal taalixaat ma ne da ngeen bëgg indil jafe-jafe rek ndax te Tiwaawoon moom ku fa jóge mooy madinatul ilm markasul saqaafa tabaarakallaahu waaye dama waxoon rekk ma ne sëñ Habib man duma laal sax ci sëñ Mansour ay wayam waaye ni mu wayoo manee woon waya way shiar noonu la manee woon itam ci wasar ak nasr ma dégg ci sunu wayjur Serigne Babacar Mansour yàgg na booba alxalifa alxaaji Abdul Aziz radiyallaahu anhu mi ngi mu wax ko muy wax ba dugg ci maam Mansour mu ne góor gi ni mu amee woon fit ñépp xam nañ alaaji Mansour fitam xamoon nañu jàmbaaram waaye yàlla mayoon na ko itam mu xam àdduna xam jamono mu ne góor gi mos na xëy daal di indi benn ibaara ne fa kam laamanii baad al ahibati ani sukuuti wa sukuuni mu ne wa ma sukuutu sukuutu xawfin wa jazain ila anni isa raaytu lam yabqa fi diini min bayn al uxuwati gayra al muaaradati wal muxaasafati wal mushahanati wal mudaahanati wa tuhmati fa sumtu firaaran min ash-shaytaan loola fa la ñu toll tey jii nii nee na dafa jékki-jékki rek ni mu sañee woon wax jékki-jékki rek noppi waxatul dal nee na ba am ñuy wax naan ko Mansour day léegi day moom day noppeem kii dafa ragal wala dafa jaaxle mu ne maa ngi leen di xamal ne noppi jéem a noppi ak dal kii ma dal du noppi ragal du noppi jaaxle waaye damaa xam ne tey bii ci àdduna bii ñu nekk muy ci diine gi ak ci mbokk gi ku jóg di àddu ci sa morom rek yaa ngi koy xas wala nga koy tuumaal wala nga koy gaara loolu nag bu ñu xoolee tey fii Sénégal toll bu ñu déggoon waxam jooja ah danañ suturaalante danañ wormaalante danañ bàyyante xel jërëjëf jërëjëf ñu ngi sant sëñ Omar di nuyu kilifa yi fi teew yépp di leen sant ci seen teewaay sant leen seen teewaay ci liñ bokk ak sëñ Omar bis bii sëñ Omar nag ràññee ci moom nit koo xam nit ku gëstu la kuy gëstu la ci wàllu nitu tasawuf yi te ñoo ñu am place bu rëy ci suñu société bi ñu koy sant ci farlu gi mu farlu ak uh, yitte gi mu jox liggéey bi gëstu bi boole la muy liggéey muy jàngale ñun nag dañu am gis-gis boo xam ne bi ci mag ñi ne lu baax rek lañ doon woote dañoo jëman ci borom bi subhanahu wa baax société nag buñ ko buñ ko buñ koy taxawal nit ñuy dund day am ñi pàcc yu bari ñee dañuy nekk ci wàllu digganteek seen boroom ñii nekk ci mbirum àdduna bi waaye ñee nekk seen diggante seen boroom nag ñoom ñooy yore xalaat yi nga xam ne yow moo mën a defar société bi mais dama gis nag loo xam ne lii yaakaar naa ñun war nañ ci gën a góorgóorlu mooy vulgariser tasaare njàngale mag ñi ci gone yi manqué na il faut ñu nangu ko la sëñ Touba doon yare gone ya tasawudu sixaar dugaluñ ko système pour jàngale gone yi alaaji Malick la mu jàngale nañ yare gone yi dugaluñ ko ci société bi lislaam ji mi ngi tasaaroo mais pas-pas bi moo des te jàngale mag ñi moo war a moo war a tax bañ suuxat ci gone yi bañ gën a xam lan mooy diine ndax ñu ëpp si ñun dañu juddu si diine rek waaye jànguñu diine te mag ñi téere yi ñu fi bàyyi bu buñ ko gëstoon exploité ko danañ ci gën a jariñ nguur gi def na ci ay gàttañlu moo di système Sénégal dugaluñ ci tarbiya diine boo xam ne dañ koy gës dañ koy jële ci ñun li ñuy moom dañ bu ñuy jàngal élèves yi ay Baudelaire ak kii ñeneen ak ñeneen ak Shakespeare te am fi mag ñoo xam ne wax nañ loo xam ne bi moo ñu moo leen jege te mën nañ ko comprendre xamul lu ñeen ñooñu adduna dafa gëndandikoo léegi mondialisation bi kon nag société bu nekk war naa la mu am ci lu baax mu téye ko ak fukki loxo vulgariser ko ba ñoo ñu xam ko bala ngay xam yëfu jàmbur xamal ni nga moom ba pare ñun amoon nañ chance boobu mais malheureusement nguur gi defu ci ay tànk ñi si diine aussi imposé wuñu seen bopp ba ñu xam ne ñoom dañoo am tànk ba ñu war a boo xam ne dañ ko war a jox gëdd mooy li ñuy def ñu li ñu liggéey ñu génne ko ndax ab societé ñépp a cay defar waaye ñun na dañoo dem ba fii nekk te gën a naw mooy gën a fonk gën a mën a wax tubaab ji rafet kay wax wala fii rafet wala pulaar yi rafet rafet kenn du ko fonk kon nag li ñu am nañ ko fonk mag ñi nag mag ñépp ñoo bokk luñ fuñ jëm mooy ci borom subhanahu wa taala ñoo bokk lu leen jàng mooy defar nit mais lañ jàngale nañ defare nit dañ ko war a vulgariser génne ko bañ xam ko ñuy rafetlu intervention imam leeral nga lu bari ci loo xam ne lii moom sëñ sëñ sëñ Mansour bind na ko di ko baaxee di ko dénk sëñ Abdoul Aziz mu baax mi mi nga xam ne dafa nekkoon di woote nekk puso ci société bi kon nag ñun suñu ci responsabilité ni ci diine yi ñu yar nit ñi yar nit ñi ba gëm-gëm gën a taxaw ñu yar yi nit ñi bañuy xam fuñ jëm ndax nit ñi te nit diine aussi ñu gën a góorgóorlu ci am xuwa iqtisaadiya ndax nit kat bala ngaa mën a bala ngaa mën a wane sa doole foog nga mën a faj say soxla ku mënta faj soxlay boppam foog mu am fu moo xam ne dafa xaw a sëgg mais nitu diine ne bu ñu amee kattan goo xam ne gi économiquement dañ mën a gën a génne diine nu mu xam ne noonu la ko noonu la waa noonu la war a nekk ñuy gërëm sëñ Omar. Euh, di nuyu sëñ Omar moom it sunu soppe la sunu xarit la nekk boroom xam-xam nekk ku baax koo xam ne day rafetal. maanaam lii lu feeñ la waaw luñ mën a gis te mën ko jëmmal waaye ku xam Seydina Omar mi xam ne programme bu ñu def ci parcelle bu aju kër Cheikh Alhaaji Malick ma nga ca taxaw bu aju kër maam Ahmed Bamba dana fexe ba invité ci tijaan yi ñiy way way ñiy wax wax kon loolu lu rafet la loo xam ne moom mi ngi koy jëf te mag ñi noonu lañ doon ràbbee seen diggante keroog ba Cheikh Alhaaji Malick génnee àdduna maam borom Touba dafa wax Cheikh bu Bousso mu def ci woy mm-hmm. moom ma Abdoulaye Niass mu ne chamsun wa chamsun ama chamsin xaabata fa bakal wara li takasufil islami mu ne ñaari jant ye mm-hmm. mooy maam Xaaji Malick ak maam Abdoulaye Niass génn nañ àdduna ci atum jant ma mille cent quarante chamsun mm-hmm. wa chamsun ama chamsin xaabata waaw jant alaaji Malick maam Abdoulaye Niass di jant génne nañ àdduna atum jant mooy cent quarante waaw fa bakkal wara li takkaasu bil islaam yi ñëpp jooy ngir lëndëm gi tàbbi waaw Cheikh Coro Mbakke keroog bañ euh, Cheikh Alhaaj euh, maam borom Touba daf ko wax woyal ma sama mbokk mu génn àdduna defal ci moom xasida mu def ci xasida ne tahaddama ruknu diini fii masasin huna wasaara ila jannati rabbiya maliku ah kon mag ñi noonu la ñu nekkee woon bi mu dajeeg Cheikh Alhaaji Malick lu ma ko waxoon wa ma taxastu qalilan kuntu aarifuhu illa jaaltu ko fawqal kulli bi bi xarit bu ñu ma mas a xamee yow Cheikh xaaji malik teg naa la ci kaw ku ma mas a am loolu fa la mbokk ak wëllëre ak ànd ma a yem waaw loolu nag ñi xamul ñooy wax rek waaye ñi xam-xam nañ bu baax a baax a baax a baax waaw ñun ñii ni ñuy waxtaane ci xasida Cheikh Alhaaji Malick noonu la ñuy waxtaane ci xasida maam borom tubaay waaw boobu boo ciy wax sax dañu foog ne yow foofu nga yaroo fa nga jàngee fekk du loolu da nga xam ne kii ki mu woy sayyiduna muhammad la maam borom Tuubaa yonti yàlla muhammad la Cheikh Alhaaji Malik yonti yàlla muhammad te demee Maodo Maodo nee na maam Bamba nee na kan la wax sëñ Tuubaa mm. euh, Cheikh Alhaaji euh, sayyiduna muhammad kon loolu rek ci lañ nekk yàlla yàlla rafetal lii ci barke sayyiduna muhammad lii sembul bu rafet la ci diggante këru diine yi ndax jot na nag dof yi wax ak ñàkk xam ñi réer tey wax ak ñi bëgg a féewale am na ñoo xam ne tey Cheikh Alhaaji Mansour wax waxoon na ko mu ne na ñoo xam ne tey seenu ànd du du nekk seen njëriñ seen ak teqalikoo rek ñooy nekk seen njëriñ waaw nekk ay commerçant rek yoo xam ne dañu commerce ci diggante sëriñ yi am na ci de ci diggante sëriñ yi noonu la amee ñoo xam ne bëgguñ parti yi nekk benn ay commerce lañu yuy dox ci diggante bi di lijjee foo dem wax ci numtu ci lu ñaaw ñu làmb poos jox la nga ne indi nga xibaar nga dem toxuwaat feneen dem wax na te képp ku lay indil rek xamalee da lay yóbbuwaale te loolu mi ngi fi yàlla na yàlla defal tawfiq Cheikh Al Hadj Mansour radiyallahu taala ku ne xam ne jotam yépp yàlla la ko jox te olof def ne jot ak jom àndul jot ak jom àndul koo gis mu am jot rek amul jom koo gis mu am jom rek amul jot jot ak jom ànduñ mukk waaw koo xam ne foo rombee fekk mu taal ataaya ji foo rombee gis ko kooku du dem fenn waaw koo gis mu ñàkk jot am na jom kon jot ak jom ànduñ waaye nag Cheikh Al Hadj Mansour léppam daf ko joxoon yàlla fa ida takallama fa min allaahi wa in nataqa fa billaahi wa in taxaraka fa bi amrillaahi wa in sakata fa maa allaahi fa huwa billaahi wa min allaahi wa lillaahi wa maa allaahi léppam yàlla la léppam sayiduna muhammad la te ki ko defar cuub ko mooy Cheikh Al Hadj moo tax Alaaji Mansour ne man yóbbu nit ci yàlla moo ma gën a yomb sëgg tibb suuf waaw ndax loolu nit da koy yeggee ci yàlla ba koo jàkkaarloog rek wàll ko sa jikko comme ni mbonaat di nàmpale ay doom mbonaat day xool doom ji rek mu suur <laughs> nit yàlla piir boo yeggul ci maqaama boobu xool sa taalibe mu defaru xool sa taalibe mu yegg ci yàlla jaru ngay nekk sëriñ jaru ngay dee sëriñ waaw wala boo nekkee sëriñ ñu nekkoo nitu yàlla nitu yàlla piir day xool sëriñ day xool taalibeem bu juba di dëng ba mel ni garabu yoo mu jàkkaarloog moom dégg nga di deux minutes rek defar ko ba mu yegg ci yàlla dutul sañ fen dutul sañ a sàcc dutul sañ a dutul sañ a dog bokk dutul tas sañ tas yaakaar dutul sañ faat waxtu julli kon nag moo tax xaaj suur ne too euh, defar nit ba mu yegg ci yàlla mu ma gën a yomb fuuf sëgg tibb suuf yal nañu yàlla taas ci seen barke waaye rek sama sëriñ ba la mu ko waxoon ci xasiida ba mooy sëñ fa Njaay daf ne boo bëggee xam yàlla mbaa nga bëgg a xam Sayyiduna Muhammad mbaa nga bëgg a xam Cheikh Sidi Ahmed Tidiane baa nga bëgg xam kan kan mooy alaaji Malick mu ne mu laaj ko alaaji Mansour ñu ne ko la mu ne aw salhu sirra nuuri sayida xawmihi man saaduhu fi asrihi saadaani aw salhu mansuuru aw salhu naasira dëhri mansuuru man qad baayaathu lqawmu kulla awaani waaw nee na boo bëggee xam yàlla wala nga xam yonent bi wala nga xam Cheikh Sidi Ahmed Tidiane wala nga xam Cheikh Alhaaj nee na laaj ko alaaji Mansour mi nga xam ne sirra nuuri mooy secret dégg nga de leer leeru alaaji malik secret ba mooy cheikh alhaaji mansour sayyida qawmihi man saaduhu fi asrihi saadaani ki nga xam ne texem ci jamono ñaari texe la ku la jur Maodo ah ku la jàngal cheikh alhaaji malik doy na maqaama hmm? te cheikh alhaaji malik ñi mu jàngal jur ñëpp ay nitu yàlla lañ kon loolu doy na maqaama mu ni awsalhu euh, naasira dëhër yi laaj ko ki nga xam ne moo dimbale jamono sayyida qawmihi dégg nga man ki nga xam ne xat baaya adhul qawmu kulla awaani nee na Alaaji Mansuur ñi jaayanteek moom ñëpp du nit ordinaire ay nitu yàlla lañu ndax ñi ay taalib buñ gaa yëpp la defar ñëpp Alaaji Mansuur ku ne woon ku ci moom rek defar na la ba nga yegg ci yàlla waaw ndax bëgguloon daray àdduna digganteem ak yàlla dara daawu fa dox kon nag yàlla ñu yàlla taas ci barkeem moo tax sama sëriñ ba sëriñ Maodo Sy ibnu Cheikh El Hadj Abdal Aziz radiyallahu taala anhu ayyadahu llahu wa nasrahu waaye radiyallahu taala anhu xam nga léeg boo ko waxee sax